alors monsieur Babacar nga ñëw fii tey seetaan euh, série bu bees bu Evenprod lancé mooy Vautour gis nañu bande annonce yi et te dañuy yee euh, nit ñi ci série bi lool ci loolu ñu wax lan nga gisee première projection. waaw tey li ma gis euh, vraiment sedd na xol liggéey bi ñu gis tey Ibou Ngoye def ko ak équipe am yëpp ndax comme di Chérif du moom rek dafa am équipe am waaye moom may ndey mbi la ji tey liggéey bi mu def vraiment mucc na ayib. liggéey bi acteurs yi def euh, costumière bi les thématiques yi nga xam ne dafay wane suñu société euh, ci fànn yëpp mu ñuy interpeller di ñu loolu moo am solo ci production production boo xam ne bi daf lay daf lay interroger euh, di la di la di la wax sa tey ak boo bëggee sa sa suba jàkk ni nga koy defee ni nga ko war a doxalee description implacable certes mais réaliste ndax li fi li ñu fi gis yëpp ñun la donc euh, bu buñ ko xoolee bu baax càmbar ko dinañ xam yoon bi ëllëg moo tax may gërëm acteurs yi di leen félicité bu baax a baax euh, soxna si leen solal aussi ma koy félicité bu baax sol bi jaar na yoon di félicité Ibou Guèye bu lépp daan mel ni ñun du ñu kaas dara ñun waa CNRA <laughs> c'est ça la vérité mm-hmm. euh, wax naa ko léegi nekk suba dinañ def benn sorti pour pour ŋàññ li ñuy gis ci yenn scènes yi li yenn série temps yi ay saaga yoo xam ne yi mën na ñàkk ay suñu soxna yeeg suñu sœur yi su ma ko benn su ma bi mën na ñàkk li mu def tey eh, xëcc histoire euh, wane présent daal di xoos futur euh, bu tey def na liggéey bu rëy rëy c'est un chef d'œuvre waaw lii moom c'est un chef d'œuvre nous sommes tous très fiers te gis nga production audiovisuelle dafa baax ci réew ndaxte soo bëggee yëkkati réew da ngay yëkkati langage am la mag ñi wax langage bi mooy production audiovisuelle yi te gis nga lii dafa dafay impacter suñu ëllëg suñu développement suñu PIB dafay tabax suñu ndaw yi tey pour ëllëg moo tax euh, dëgg-dëgg li ñu def nii ñu leen di bàyyi xel lool ndaxte dañuy dem di voyager ak suñu identité moo tax ñoom rek moomuñu ko peuple bi ci la bokk boo gisee ma xëy suba teel gis lettres yi bëri sama bureau dañuy dañuy wax ne ñoom sénégalais yi dañuy wax ne Ibou attention li ngay def ci la ñu bàyyi ñu xel ndax boo demee dañ naan société sénégalaise la dañ naan waa Sénégal mas naa dem South Fork yàgg na trop euh, fu ñu defer Dallas ci boori Dallas ci Dallas série boobu nga daan dégg ma dem South Fork ñooñu ne waaw Babacar gis nga ko du ñun de c'est pas nous du ñun du ñun parce que wax nañ dëgg adduna bi yëpp. dañ jël li doon ci Dallas pour ñoom donc ñu ngi bañ waaye Ibou lu ñu def ñun la te vraiment tey jii su du tey li mu def ñun la suñu démb la wane suñuy buur seeni valeur ak li ci yàqu ak nu ñu koy defaree muy lu am solo lool te daal ñëpp kontaan wax dëgg yàlla. kon ñu mën a tënk CNRA série bi kontaan ci am na ci mbégte. le producteur que je suis ndax sa mooy sama métier depuis très longtemps je suis content le régulateur que je suis est très satisfait. te dama bëgg lii mu def ni tey law et puis kontaan naa trop ndax dama amoon tey représentant ministre de la culture ci sama gauche sama droite Sonatel dama bëgg gouvernement donc ak privé ànd jàppale œuvre yu mel nii parce que nag dafa am solo ci réew lu am solo ci réew moo tax dinaa ci ñaax waa Sonatel xam naa leen bu xam miin naa leen ministre ministre la culture aussi ñu ngi ci daan la gën a ñaax. premier épisode bi nga génnee tey ci vautour gisoon nañu bande annonce bi gis nga euh, directeur du Sénégal li mu wax ak ci série bi yëpp lan ngay wax euh, ci kàddu bi mu waaw euh, bu ñu amee président mu wax loolu ak ñun fi ñu jaar ak moom fan yi ci conflit dañuy dañuy sant rek xam ne dégg nañ amaana li mu li nga xamante ne moom la doon wax. te xam nañ tamit li tax mu koy wax des fois ñàkk déggoo mën na am ci yenn yi parce que création moo xaw a compliqué mais li mu wax lu ñuy bàyyi xel la lu ñuy bàyyi xel la je pense que notre collaborateur monsieur Diop bi nekkoon demoon seeti président jamono yële ci gannaaw waxoon na ci engagé woon nañ ci te ñu ngi ciy góorlu pour essayer lépp lu ñuy def ñu jéem ko seet nuñ ko gën a woddee comme nu ñu waxee parce que loolu lu ci am solo la donc euh, on en phase avec euh, le président mel ni vautour bi convaincre na leen parce que démb wane tey euh, vautour bi lan moo ko indi sax ba ngeen xalaat série bi tegal ko Sénégalais yi. waaw vautour euh, mu ngi jóge ci réflexion ma naa wax ne mën na jóge ci benn phrase du président euh, poète qui disait que il faut euh, ak euh, enracinement d'abord pour pour ouverture et construction de base bi foofu la donc on traite de de c'est une série qui est traitée sur deux époques dañuy dem démb xool mag ñi ni mu meloon nan lañ amoon ci jikko nan lañ amoon ci organisation nan lañ amoon ci culture ba pare bu ñu paree comparé ko ak tey nan la jikko yi mel lan moo ko waral la ñuy jàngale ci série bi la ñuy xool ci série euh, voyage boobu nan la demee est-ce que respecté nañ ko am na lu ñu ci bàyyi lu tax ñu bàyyi ko euh, loolu lépp le vautour du traité léegi nag euh, dañ ciy profité mu nekk vitrine boo xamante ni dañuy wane suñu démb nu mu mel parce que sañu conseil Euh, en histoire bi ñu am parce que projet yi ñuy yi ñuy liggéeyee pour nit ñi xam importance bi ñuy def euh, domaine bu ñuy nekk rek dañuy wut ay conseils ci côté boobu ay ay jeunes historiens c'est des jeunes toujours qu'on prend qui sont à l'université euh, Bathie Samb qui nous sert de conseiller dans ce domaine dañuy visiter lépp loo xamante ne nii lu ñu war a mën a génne la ci histoire Sénégal ñu ñu ñu mettre ko en avant ci culture yëpp nag la ñu ñaan yàlla visiter pour l'instant loolu suñ ko commencé teg dafay permettre pour ñun ñëpp ñu ñun ñi nga xamante ne ñooy des jeunes sénégalais jeunes africains ñu xam na suñu démb dafa naatoon contrairement à ce qu'on essaie de nous parce que euh, une des histoires qui va venir c'est l'histoire de euh, la révolution de Souleymane Baal boo xamante ne suñ ci duggee da ngay gis ne c'était une révolution boo xamante ne bien avant la révolution française donc c'est des choses yoo xamante ne ni c'est important pour man ñu mettre ko en lumière pour que la jeunesse africaine sénégalaise particulièrement puisse se dire écoute man kat contrairement ak li ñu di wax sama ëllëg dara du naxas naxsaayul c'est-à-dire ma ëllëg comme ñuy wax suñu maam yi defuñ dara parce que dafa dem ba dañ koy dugal ci xale yi boppu xale yi dañuy dem ba xale yi dañ koy kafe ah seen maam yi dafa ñu dara suñu maam yi nelaw rek lañ fi nekkoon wala alors que c'est archi faux et pour man li mu waxoon vitrine ak langage dëkk cinéma la ak lii ñuy def ñun production audiovisuelle yi suñ ko ci mënee jaaral pour indiwaat loolu ci lu mel noonu le projet bi nekk ñu jéem ko traité ci ñaari j'ai beaucoup aimé ce mot de Cheikh Anta Diop qu'il a mis mhm. il faut que nous puissions arracher notre patrimoine et c'est une voilà ce qu'on met devant devant chaque euh, chaque épisode C'est pour aussi réveiller dans ce sens-là le travail que le professeur Cheikh Anta faisait dans ce domaine pour que ñun ñëpp ñu bàyyi xel que ne suñu culture ak suñu patrimoine culturel suñ ko téye fu ñu dem ci àddina bi mën nañoo dinañ fës dinañ génn dinañ bu baax te dinañ jaay suñu suñu suñu suñu dëkk ak suñu xel voilà ci lu mel noonu daal Leva Tour di di di di taxaw. mais est-ce que yaakaar ngeen ne série bi dina captiver téléspectateurs yi d'autant plus que tàmmoon nañu benn contenu boo xam ne moo amoon plus de visibilité. kooku ma ci tontu parce que tey seetaan nit ñi bi ñuy xool ñu fi ne woon ñëpp te euh, gis naa ne ñi fi woon y avait des professionnels ñu ci xamul dara ak ñu ci xam bu baax ak ñu ci liggéey comme man. tout le monde était captivé. J'ai vu la salle réagir très souvent. Ils ont rigolé, ils ont applaudi. Parfois, ils ont été terrorisés. Après, ils ont aimé. noonu la Sénégalais nar def ci série bi ils vont regarder ils vont apprécier ils vont le plébisciter mais surtout ils vont lui dire attention léegi fii nga tag si tànk foofu la bul ko ah oui oui on va convoquer notre responsabilité et sa responsabilité et celle de tout ceux qui produisent que léegi xam ngeen ne am na patrimoine bu ngeen mën war a arracher def leen ko pour réew mu jëm kanam bu waxee nag doyul il faut ñu jàppal leen ci man loolu laa gëm pour ñu jël yoon wi ñu jël. léegi kon infidèle est-ce que dina ñëwaat parce euh, <laughs> ñëwaat parce que gisee na ak ñoom ay ndawam ñu demoon Burkina Faso wax naa leen lama doon bañ. la ci réew mi ndax du man man réew mi moo may wax la ci réew mi doon bañ ñoom prouvé nañ ma na nekku ci lañ doon bañ du ci nekk mukk fi ñu teg seen tànk du fi gars yi xalaat ne fa ñu jëm loolu doy na ma sëkk man. saison 3 mu ngi ñëw incha allah. <laughs>